situation asalaamaaleykum eh, mbokk yi maa ngi nuyu jàmm ak salaam eh, j'espère que yéen a ngi bu baax j'espère que yéen a ngi bu baax aidez-moi à vérifier si le son est bon rek ndax mi ngi ñëw normal dégg bu baax est-ce que c'est bon ok c'est parfait euh, bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di sant ci euh, ci teewaay bi ci ni ngeen mën a participer ci live taxaw di ko déglu euh, di leen ci temps bi ngeen ci nar a jël allah xam naa ni du du yàggu noonu sax bon depuis depuis depuis bi ñu génnee dañ doon observer tuuti parce que gis nañ daanaka communication bi dafa nekkoon en ébullition ñu bëri di wax euh, rawatina sunu frère yi nga xamante ne ñoom lañ nekkaloon fële ca mag bu rëbës ñu dund dund boo xamante ne ñëpp li ci nekk kenn ku nekk dafa am na ko dundee kenn ku nekk dafa am euh, loo ci daj kenn ku nekk dafa am aussi yoo ci seetlu yoo xamante ne amoon na solo pour nga exprimer ko donc euh, biñ ciy wax dañ ne woon comme que ñun aussi bon sunu ay rakk daanaka lañ fa nekkal pour pour la plupart nañ bàyyi jël leen jël seen temps observer leen ku nekk wax li nga xamante ne moom nga xalaat donc euh, loolu moo taxoon ñu woon nañ leen déglu pour ñu wax seen xalaat li ñuy wax yëpp euh, yi ñu ci déglu yëpp yi ci gis yëpp d'ailleurs ñuy wax yëpp xam nañ leen d'ailleurs parce que ñoo fa nekk noonu xàmmee nañ leen bu baax bu baax mais li ñuy wax yëpp aussi ci ay jafe-jafe ci ay difficultés fa nekk euh, lu am la loolu naa ci ñëw après dam bëggoon commencer par samay propos. ko jaale ñi nga xamante ne ñoom lañ ñàkk ci euh, xeex bi nga xamante ne moom lañ nekkee depuis euh, xeex bi ñuy xeex yéen ñëpp xam ngeen ko du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Bassirou Diomaye du xeexu keneen ak keneen mais xeex bi xeexu askan bi yëpp la euh, am nag ay prix yoo xamante ne foog ñu fay ko te yaakaar naa Ousmane Sonko ci jamono yi yëpp ak yëpp paasa doon na ci ñëw bu baax a baax a baax di wax ak nit ñi. ci jafe-jafe yi nga xamante ne mi ngi ñuy xaar euh, du ma ne sax at yi mais dama ne sax ba ñuy créé Pastef ci boppam dégg ngeen ko fu mu waxee nii am na ñenn ñi nga xamante ne ñoo ne dañ ko bëggoon porter à présidence waxoon na leen que euh, nañ def attention te xam ni que ni création parti na am ay conséquences te ñenn ñu bëri seen liggéey dañ dañ ci naan am ay jafe la preuve ñi nga xamante ne ñoo nekkoon membre fondateur am na suñu bëri ñoo xamante ne après ils n'ont pas pu poursuivre. Euh, le chemin ak Ousmane ko ci cadre projet Pastef donc bu ñu demee tey ba am ci liñ ci am mu nekk ay martyrs ñoo xamante ne dañoo daanu encore pour la démocratie sénégalaise te nekku ñu nit ci njëkk a daanu au Sénégal mais dañ ñëw allongé benn liste bu gudd boo xamante ne ay doomu Sénégal la yoo xamante ne bëgguñoo dund injustice ay doomu Sénégal la yoo xamante ne chaque fois qu'il agi de dire non dañuy wax non fu ñu mun di nekk ci confort bu ñu mun di nekk noonu la amee ñi nga xamante ne ils sont nantis ils sont établis. mais noonu la amee ci ñoo xamante ne ay jeunes lañ daanaka àdduna sax taxawaguñ ci noonu mais prêt à tout sacrifier pour que dëkk bi nekk ci jàmm damay wax sax ni euh, tey ñu bëri ñu ngi euh, nekk ci processus bi accalmie bi ñu am ba ni ci mën a dem élection ba mën koo yaakaar loolu yëpp gëm naa ni bu dul woon suñu rakk yi nga xamante ne tey ñoo xeex taxaw daanu ci wàllu troisième mandat bi ñu koy xeex ak daanu ci wàllu xeex bi ñoo doon xeex ci gunge Pastef ak projet gëm naa ni tey euh, ak accalmie bi ñu am ni ak dal bi ñu am ni pour dem si élection kenn ku nekk mën a sax am looy imposé ak di ci coow coow lu bëree bëri mun naa am bu nekk woon sunu rakk yooyu daanu sunu martyr yooyu de la démocratie gëm naa nit am donc c'est des gens yoo xamante ne euh, nous nous sommes tous euh, redevables te ba ilaa mi din Sénégal du fàtte seen tur donc ñu ngi jaale seen njaboot di jaale famille patriote bi yëpp di jaale sunu bopp di jaale président Ousmane Sonko nga xamante ne mooy sunu njiit ci parti bi. di jaale ñëpp ñi nga xamante ne tey directement ou indirectement perdre nañ ci ay mbokk am nañ ci ay jafe-jafe wala perdre nañ sax ba matériel waaye ñu wax rek ne benn benn bakkan bu daaru moo gën a matériel yi ñàkk Sénégal yëpp dañuy jël dëkk yu mel ni euh, France wala États-Unis ay manifestation day am am ay heure euh, magasin yi gën a mag yi gën a cher dañ koy dévaliser dajji ko def ci affaire yu garaaw a garaaw garaaw terewul ne dëkk bi après dañuy ñëwaat Euh, waxtaan seen biir xool nu ñuy avancé voilà donc man dama ne woon naa commencé par jaale suma rakk yooyu euh, xam ni taxawaay bu état war a am da ko da ko da ko da ko war a taxawee pour assister famille yooyu pour dimbali jeune yooyu pour dimbali père de famille mère de famille yi nga xamante ne ñàkk seen doom doom lu cher la rawatina doom boo xamante ne dafa pétri de valeur dafa am ay ngëm-ngëm dafa am ay principe dafa am ay conviction yoo xamante ne kenn mënu ko dindi donc euh, képp ku ñàkk doom mel noonu rek. ak doom fu mu féete waajuram ak doom fi mu mën a féete euh, njabootam bu ko amee euh, lu méttee métti la bu ko ñàkkee donc askan bi war nañ mën a xaar comme ni ñuy xalaatee indemniser bu amee ay aléas yu dal ci euh, sàmmkat yi wala baykat yi yook yooyu ñu xaar ëllëg incha allah gouvernement bi nar a ñëw ñu xalaat a indemniser famille yi voilà loolu c'est le minimum qu'on puisse faire pour ces gens-là et puis honorer leen voilà bépp honneur bu ñu leen def rek euh, jarut a xeeb mi ngi noonu loolu laa bëggoon wax si ci ci ci suñu rakk yooyu daanu euh, feddali aussi sunu colère ak ñu nekk Pastef yëpp ma commencé ko à la tête ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko suñu frère la suñu xarit la euh, ñu yàgg ñu yàgg a nekk ensemble di liggéey ci cadre Pastef mu nekk koo xamante ne daf ñoo wóolu. Euh, daf ñoo jox cër dañoo respecté bu baax a baax a baax ah, di ñu liggéeyloo teg ñu si wetam euh, di ànd ak ñun ci lu bëri am suñu confiance boo xamante ne bon lu bëri ñi nekk ci parti bi xam ne jarul ñu si ñu si nga xam ne dañu xam ni euh, projet bi jaral nañu sa à lépp lu mu jaral kenn ku nekk ba nga mën si am taxawaay yu am solo rek mu jaral nañu lu ko raw moo tax bu ñu jàppee. bu ñuy teg yenn coono yeeg yooyu daanaka duñ ko yëg parce que am na ñoo xamante ne ils ont payé le le le plus fort quoi voilà donc Ousmane Sonko boobu ñu ngi feddale suñu koro moom vraiment di ñaan yàlla mu génn foofu waaw mais di wax ni aussi bépp taxawaay bu ñu war a am pour mu gir génn dañ ko war a am moom suñu candidat Bassirou Diomaye ak tous les détenus politiques remerciement yi may adressé aussi euh, day dem ci askanu Sénégal yëpp parce que Euh, dañ nekkoon ci ay difficulté mais fi ñu nekkoon aussi askan bi yëpp daf ñu taxaw ñëpp ñu doon ñaanal ñëpp ñuy ñaanal ba léegi euh, foo toll ñu ngi tudd sa tur foo toll ñu ngi fexe noo génnee effort bu nit mën a def kuñ mën a gis kuñ mën a waxal euh, ni ci doon nañ ko def te ñun ñi ngay gis ne biñ duggee rëbës ba ni fay génnee yàlla xam na ni mosuñoo woo mu mosuñoo woo chroniqueur musuñoo woo kenn ci suñu parti ne ko defal ñu lii wala defal ñu laa jamais de la vie même sama famille sax commencé ko suma yaay ak sumay sœur sumay bu frère frère ñëpp amul kenn koo xamante ne wax naa ne demal defal ma telle démarche wala defal ma telle chose bu ma génn suma avocat benn yoon laa ko mos woo benn yoon amoon naa avocat yu bëri mais kenn laa si mos a woo muy maître Khoureychi te benn yoon laa ko woo te li taxoon ma woo ko dafa am benn détenu boo xamante ne mi ngi tudd Abdou Lahad Fall ñu waroon ko dugalal LP parce que juge bi da ko bëggoon bàyyi mais amu amuñu woon koo def parce que ça prenait du temps ma contacté ko benn yoon pour demander ko na ko déposer mais sinon pour ma personne musuma demander avocat yenn service yi wala may teg pression wala ma woote kenn quoi que ce soit wala ma woo euh, keneen koo xam ne dafa nekk sama famille pour mu dimbali. su ma xamee sax ni nit daf ma bëgg defal yenn jéego yi su ma ko yëgee danga koy teel a artu ne ko buñ ma defal benn jéego demandé wu ma dara buñ ma ñaar kenn dara parce que dañ ma tooñ indi ma fii su ma waree génn aussi yoon bu ma war a jaar pour génn rek laa jaar ko génn quoi mais sama der sama honorabilité sama respectabilité du ma ko en danger jamais voilà donc noonu la mbir yi demoon donc remerciement yi sunu mbokku patriote yëpp la grande famille patriote yëpp xamante ne fii lañ nekk ak diaspora sunu sëriñ yi sunu xarit yi sunu mbokk yi ñëpp amul kenn ku ñu bàyyi képp koo xamante ne euh, xam nga ne mus ngaa taxaw ci détenu politique yi rek ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay remercier lii sax bokk na ci tax ma gën a temps jël temps parce que bëgguma woon di bind post Facebook juste pour remercier gars yi te loolu dafa nekk lu lu simple lu lu gën a accessible mais dama ne woon naa jël kàddu de vive balaa ma euh, demaat ci ay plateau wala quoi que ma taxaw remercier leen bu baax a baax au nom de tous les détenus politiques voilà euh, dama aussi su ma jàllee fànn boobu. wax ci euh, détenu politique yi carrément am na débat buy posé wu ñuy wax lu bëri ci détenu politique non lii amul lee amul détenu politique amul et cetera et cetera loolu duñ ci sori parce que Sénégal yëpp léegi xam nañ ni détenu politique am na ndax gis ngeen ni ñuy jàppee ak ni ñuy bàyyiwaatee donc détenu politique am na Sénégal koo xamante ne ko jàpp ci manifestation boo xamante ne politique kese moo ko lal boo ko téye détenu politique la. waaye boo tegee ñaari détenu nga xamante ne ni organisation institution institution yi taxawee ñii dañ leen téye si kaso bi ñii téye waaye lañ leen waaye bàyyi lañ leen ñu génne pourquoi def nañ affaire yi gën garaaw mais autorité politique moo ñii dañ leen a bañ a génne pourquoi parce que ñoom dañoo am benn coloration politique boo xamante ne arrangé wul ki nga xamante ne mooy gérer institution yi kooku boo ko téyee su boobaa am nañ droit ne kii détenu politique la waaye wees na sax détenu politique parce que gëm nañ ñun ñëpp ay otage politique lañ finalement parce que bu ñu teg ci bërëb ci diir boo xamante ne toll na noonu nga xëy chaque jour di gis ñoo xamante ne ay fee yu gën a garaaw téeméeri yoon lañ leen jàppee ñu am liberté provisoire sa kanam lu nekk nga koy gis ñoo xamante ils ont fait des choses extraordinaires parfois sax dossiers yi nga xamante moom la ñu des gens yoo xamante ne ci am taxawaay a jéggi dayoo téeméeri yoon mais c'est des gens qui ne donc je crois que yu mel noonu su amee am nañ droit ne lii ñi nga xamante ne dañ leen jàpp ay détenus politique lañ kaw euh, torture ñu ngi ko ciy wax ak yooyu ne amul mais am na manifestation yi amoon au mois de mars ak au mois de juin euh, boo laajee ñi nekk biir Rebeuss di nga gis ni am na fa détenus yu bëri yoo xamante ne bañ ñëwee ñii dangay gis seen tànk dañ ko damm ñi seen bopp dañ ko toj ñi seen tànk ak seen loxo dañ koo damm ñu ay rupture ligament lañu am et cetera et cetera te ñooñu bi ñu leen di jàpp lañ teg jafe-jafe yooyu yëpp donc am na ñu ñoo xamante ne dañ toog sur cest que avocats yi xam nañ ko le certificats médicaux son la pour le prouver mais ñoom ñi ñu dal sax ñoom mun nañ koo témoigner seen bopp wala sax euh, euh, euh, ñi nga xamante ne ñoo doon faj biir biir Rebeuss donc loolu loo xamante ne la lu avéré la mais dama buggoon wax. ci fànn pour man moo ëpp doole mooy résilience su détenu politique yi gis nga ñuy jàpp ni ngeen leen di dégg biir rëbës euh, amu ci kenn koo xamante ne tey boo demoon fëgg ko di nga ko fekk muy sarit amul xam nga ni dof mi ngi def benn émission di ci wax benn jeune boo xamante ne dafa nekk ci benn chambre bu doy waar muy chambre neuf euh, ñëw ñuy def gàmmu ñu toog ñëpp di wax ku nekk di wax moom mu jël kàddu pour wax ak ñu def di ko wax ne moom bu yëgee ni nit ñi ñu ci jàmm rek bu yëgee ni président mu mi ngi ci jàmm bu yëgee ni projet bi mi ngi ci mu ngi ci kuuram ba léegi mi ngi dox ba léegi rek moom il est satisfait li mu bëggoon am na ko c'est-à-dire nit ñi fàtte seen bopp ñu sax seen bopp donc fépp fu ñu mën di nekk ñoom ñu ngi liggéeyal Pastef tey détenu politique yi ngeen di gis nii yëpp rëbës. ñoom ñoo fa nekk di liggéey ñoom ñoo liggéey liggéey bu am solo ñoom ñoo nekk Rebeuss di fa liggéey liggéey bu am solo tey ñoom euh, boo demee si par exemple lu ñuy wax plomberie plomberie Rebeuss nga xamante ne dafa yàgg am problème euh, am na benn pâtissier bu ñu wax Youssou boo xamante ne daanaka lu bëree bëri moo ko fay def non seulement dañ nekk say conditions yu difficile di ko dund di muñ mais dañuy continuer di liggéeyal sax waa kaso bi. cest à am na suñu rakk yoo xamante ne tey boo demee fu ñuy wax censure mooy fi nga xamante ne euh, dara bu dugg si rëbës muy yére muy lekk ak muy lu mu mun di nekk muy courrier et cetera foofu lañ koy càmbaree balaa mu dugg si détention bi ay patriotes ñoo fa nekk di fa liggéeyal Sénégal am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci plomberie ñi nekk ci maçon ñi nekk ci leneen ak leneen donc au-delà même sax de jafe-jafe yi am. seen njaboot nañ xam ne seeni doom ñu ngi foofu di liggéey di rendre service te li ñuy liggéey noonu ci li ma si jot a xam man c'est pas rémunéré ils le font gratuitement ils le par patriotisme ils le font pour leur pays je prends l'exemple du nga xamante ne euh, si mouvement des cadres la bokk euh, nekk yëmbal nekk ko am ku am ku am taxawaay ci Pastef ku yàgg ku yàgg dafay effort médecin la mais bu mu ñëwee gis équipe médicalu rëbës bi ni mu mel ni mu composé wu ak li ñuy liggéeye mu gis ni war na mën a jàpp ci liggéey bi quelques jours après rek mu dugg parce que dafa ñëw engagé wu foofu di dimbali détenu yi ñu ñi am na ay affaire ñu fa daloon ay yenn feebar ak yooyu euh, doon nañu jàppale moom ak ñi nga xamante ne ñoo fa nekk major yi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy liggéey foofu donc c'est pour dire que détenu yi dañu am taxawaay yu am am solo yoo xam te ñu ngi am si biir métit bi nag bi fa am. te suñu rakk yi di ko wax booba léegi lu avéré la loolu du loo xamante ne sax dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy lam-lame am na suñu rakk yoo xamante ne tey dangay ngay gis ñu ñëw ci yow euh, ne la Fadilou dama bëgg nga ñaanal ma pourquoi parce que sama soxna daf ma ñaan baat parce que gis ngeen ni nit ki boo ko tëjee yàq liggéeyam bloqué ko ci ay activité am séparé ko ak dafa am ay interférence yu bëri yoo xamante ne daf koy am dañuy gis ku ñëw jabaram divorcé donc may wax fii ne am na sëy yu bëri yoo xamante ne tas nañ ko ci jàpp bi ñu jàpp nit ñi dugal leen kaso en masse am na doom yu bëri seen jàng yàqu na pourquoi parce que seen waajur bi leen doon fayal moo mootu leen fayal seen jàng am na soxna yu bëri yoo xamante ne avorté nañ pourquoi ndax état de stress permanent bi nga xamante ne fa sunu soxna yi daan nekk am na ku ñëw sunu benn xarit bëgguma tudd turam mais ñëw na dama fajulu tey suma soxna dafa avorté ay seex xam nga loolu c'est extrêmement pénible pourquoi parce que stress bi xam sa jëkkër mi ci kaso bi mënoo ko muñ lu nekk nga dugg ci lu nekk nga def ko di stressé H24 te stress bokk na ci li gën a bon ci ci jigéen boo xam te ne dafa nekk en état waaye aussi am na ñu defoon ay prêt doon yaxantu ci liggéey banque yi mënatuñ leen a satisfaire seen ay seen ñu topp ñu jël leen yóbbu dem seen famille saisir seen seen i waaye aussi am na ñoo xamante ne tout bonement seen liggéey dañ ko ñàkk parce que dafa brisé dafa yàqu parce que bu fa nekkul mënuñu koo doxal maçon bi doon yóbbu këram benn cinq mille wala benn dix mille pour dundal njabootam aussi boo ko tëjee xamal ni famille boobu appauvrir nga am ñoo xam ne dañu toog seen papa wala seen yaay. décédé génn àdduna wala seen sœur génn àdduna nga toog foofu mënoo dem fekkee sax enterrement bi rendre leen le minimum hommage bi nga xamante ne moom nga leen war a waaye aussi am na yeneen façon méthode yoo xamante ne day aju kenn mënu la wax lépp mais lu nekk lu nekk nit ñi dund nañ ko foofu ci biir ci biir rëbës am na ay feebar yoo xamante ne day am biir rëbës yenn maladie maa ngi nuyu équipe médicale bi fa nekk di góorgóorlu Euh, seeni effort yi nga xamante ne ñu ngi koy def parce que euh, ñu ngi jéem a génn nit sax parfois leen yóbbu ay abbas ndaw ñu fajok yooyu ñu xool leen xool seen seen seen seen santé dafa leen ay bilan yooyu euh, ñu ngi traité ay nit sur place ñu ngi def ay effort mais xam ngeen administration rawatina administration pénitentiaire ay moyens am jotewul noonu waaw te sax may fas ma damay tàmm di wax sunu sunu sunu lakk yi que ne notre combat c'est pas en direction de ces de ces de ces gardes pénitentiaires là pourquoi parce que amuñu ñoom problème ñoom liñ leen jox moyens yi leen jox ci lañuy limité wu pour liggéey te sax buñ ñëwoon indi leen mille détenus leen dugal leen ils sont obligés jël mille détenus yu dugal leen donc foofu suy am ay astreinte suy am ay jafe-jafe ah c'est la hiérarchie moo koy def mais du garde yi directement moo tax les gens ont évité de leur mieux di bañ a am yenn type d'altercation ak ñenn ñi moo tax. Euh, ñu leen di gërëm ñu leen di remercier ci taxawaay bi ñu am di leen ñu gën a góorgóorlu parce que ay bakkan ñoo nekk seen ay euh, seen ay loxo. Euh, di remercier directeur bi fi nekk ak directeur bi fi nekkoon parce que ñoom ñëpp on a géré des situations parce que bi ñuy def grève de la faim xale yi suñu jeunes yi dañuy nekk ay situations yu grave te dafa am ay ay ay ay ay astreinte ay contraintes yoo xamante ne moo am moo am ci protocole bu am ci kaso c'est-à-dire que nit su grève de la faim da nga ko cellule mais je crois que def nañ ko foofu. mais yenn sanction yi amu si pourquoi parce que échelle bi dafa yaatu te diplomatie kese mu mën a yenn affaires yi voilà donc ñun on a usé de ces voies là waxtaan ak autorités yi nekkoon en place ba xool ñuy gérer affaire yi au mieux man mi il est arrivé à un moment donné ay suñu rakk yu bëri di ko def mais ma ñëw par ay dix plusieurs dizaines di leen bàyyiloo def aussi il faisait la même chose Diop Taïf ak ñoom Hannibal Djim ak et cetera parce que ñëpp lépp lu ñu doon def on le de manière concertée dañuy xool ne lii war nañ ko am comme taxawaay mais jamais il a été question d'abandonner Ousmane Sonko dans ce dans il était chaque fois boo xamante ne daf ne dañuy grève de la faim ñun on l'a fait du début à la fin suñu rakk yi fragile ñu bàyyi leen ñu arrêté ñun ñu continuer ko du début à la fin pour gën a recentrer de bi ci détenus politiques yi yi am noonu yëpp ak jafe-jafe ñun technique ñëpp ñuy dàq seen liggéey ñi seen soxna avorté ñi seen jabar demandé divorce ñi seen doom seen jàng yàqu ñu defoon prêt banque yu topp leen ba ñoo saisir seen i bien mais ñi amoon business di dund seen njaboot ñu break ko waaye aussi euh, ouvrier yi nga xamante ne jàpp nañ leen de manière vraiment arbitraire xale yi ndaw yi ñu jàpp nga xamante ne gis koo xamante ne sax dañu jàpp magam mu dem di ko yóbbul añ ñu jàpp ko am na ko ma xam koo xamante ne mois de mars la fa nekkoon magam lañu jàpp ñoo du ko yóbbul añ ñuy jël ko dugal ko ci grille bi xam loolu kenn mënu ko expliquer Sénégal moo tax bu ñu gisee ni ci di libéré nit ñi am ñu taxaw di am yenn taxawaay ak yenn wax yi cest à que c'est-à-dire que débat boobu mérité wul sax ñu si ñu si tontu en fait parce que injustice keese keese keese lañ jàppee nit ñi te ñi leen jàpp ñoo war a xool seeni moyens pour génn waat leen d'ailleurs je je je maa ngi déglu benn benn intervention maître maître Moussa Sarr. que je trouve très très très pertinente bi ñu ko laajee ne ko non par rapport ak liberté Diomaye ak affaire bi na mu ne non autorités yi ñoo ko jàpp te xam nañ fa la ñuy jaar pour génn ko suñ ko bëggee génne ils n'ont qu'à le faire man par exemple je suis dans le même dossier que Ousmane Sonko ak euh, le président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye euh, tey génn naa xawma sax les tenants et les aboutissants mais je crois que dossier boobu man su ma si génnee ku mel ni Diomaye ku mel ni président Ousmane Sonko amatul lu muy def ci biir. parce que ñun doon nañ liggéey ci Pastef vraiment euh, à un niveau stratégique te musuñu fekkee fu ñu planifier lu ñaaw suñuy droit xam nañ ko di ci taxaw mais musuma gis fu Ousmane Sonko taxawee di planifier quoi que ce soit en rapport ak seen chef d'inculpation yi nga xam te ne moom lañ teg ci kawam wala Diomaye Bassirou Diomaye di def boo xamante ne dafa méngoo loolu wala sunu beneen rakk man musuma ko gis musuma ko fekkee te je sais parti bi euh, bon liggéey nañ fa et puis fekk nañ lu bëri aussi ci parti bi voilà xamuñu loolu ci Ousmane Sonko xamuñu ko ci Diomaye mar ñu jàppoon nañu suñu bàyyee rek qui peut le le moins parce que au même titre la ñuy jàppee même chef d'inculpation yi la donc ñun aussi suñu bàyyee dañu doon toppee ay fekk mais je crois que suñu rakk yi nga xamante ne toppewuñu leen yooyu yëpp ay manifestation kese la war nañ mën a bàyyi il mérite amplement de sortir. J'en profite pour dire aux patriotes que plein Macky Sall président Macky Sall gën a bëgg jàmm mais da ngeen di taxaw bu baax a baax a baax seeni droit parce que manifester droit la c'est un droit constitutionnel kenn mënu la ko dindil taxaw si ba mu ferme loolu c'est pas des choses à négocier quoi mais bu mu leen gën a bëgg jàmm parce que lii muy woote nii business am la les gens nous parlent d'amnistie loi d'amnistie tout ça là ñu loi d'amnistie ñun suñu yoon nekku si pourquoi parce que lu suñu débat bopp xam ngeen ni boo leen demoon élection yéen yéenay gagné incha allah donc vous êtes en pole position vous avez réussi à reléguer ñu bëri ci ne ñu nekk ci sphère politique ba nekk en pole position en dix ans macha allah am ay martyrs yoo leen am il faut pas que tous ces efforts la soient vains maanaam mu dem ci neen mënul dem neen ci deewuñu pour affaire di naax saay nit yi dugguñ leen kaso pour affaire di naax saay nit yi nekkuñ di xeex ku dégg bëccëg bàyyi seen activité yëpp pour affaire di naax saay donc affaire dafa war a am aboutissement à aboutissement positif Ousmane Sonko wax na leen ci livre am solution ne xeex bi lu mu tar-tar lu stratégie bi baax baax baax baax baax lu ñuy ingénieur dans les dans les propositions tant que atteindre ñu la station ultime pour mën a changer dëkk bi rek on aura tout échoué c'est-à-dire que day mel ni defuñu woon dara te liggéey bi kenn fàtte ne du liggéeyu. Ousmane Sonko du liggéeyu kii que soit liggéey bi liggéeyu Sénégal la te Ousmane Sonko ci loolu la mos a woote depuis 1960 nit ñaa ngi liggéey di xeex pour Sénégal buñ ko fàtte jamais il faut jamais perdre ça de vue jamais jamais parce que tey ñun dañuy nekk ci finalité mais liggéey bi commencé na yàgg na Ousmane Sonko ci boppam benn bés euh, mu mel moom ci boppam papam radié nañ ko fonction publique réintégré ko rajewaat ko amul ñaata ñaata fonctionnaire lañ fi raje fii ndax taxaw di bañ a exécuter ordre bu illégal ñaata nit ñoo taxaw ci administration bi bañ tax seen carrière ñu brisé ko ñaata bakkan lañ faat ci ay manifestation depuis cinq ans ñaata nit ndax seen engagement kese ñu bouleversé seen àdduna ñu piégé leen wala ñu def leen loo xamante ne voilà ñaata nit ñoo dee ñaata nit ñoo disparaître depuis donc li ñu nekk nii finalité la moo tax dañu war a liggéey ak benn précision bi euh, am na stade booy toll ci liggéey ak ci xeex dañ koy wax ne les erreurs se paient cash c'est-à-dire que amatuñu marge marge d'erreur bu boo xamante ne dafa bëri li ñu war a def mooy gën a incisif gën a xam lu ñuy def gën a def ay choix yu choix yu choix yu stratégique waaye gën a am consensus ak partage ak appropriation ci projet yi nga xamante ne leaderu parti bi. coalition Diomaye bi nga xamante ne tey mooy cristalliser lépp euh, moom lay teg donc il est important ñu am ci taxawaay boobu euh, détenu politique moom li muy daj bi rëbës euh, mun ñu ko lim tey ba mu jeex quoi je me ne ko waxoon rek naa ci wax tuuti pour joxe ci joxe ci suma xalaat j'aurai le temps ñëw en profondeur parce que comme ni ma ko doon waxee sànq nga sax bu loolu boo jëlee rek volet feebar yi nga xamante ne moo am rëbës am na lu mel ni ay gaal yu am. am na benn feebar bu ñuy wax toxoro man foofu laa ko découvrir noonu lañ ko woowee quoi toxoro la ñuy wax euh, bu attaqué sa partie génitale yi ak yeneen ak yeneen am na ñenn ñu ko amul mais ñu bëri ñi nga xamante ne dañuy nekk ci yenn nekk yi nga xamante ne day fees dell bëri nit ñi ci di seerante noonu ñu si bëri yenn feebar yi xam nga foofu ndox bi su manqué ñi ci nekk en surnombre ci chambre chambre bu war a jël trente personnes nga def fa quatre-vingt-dix personnes chambre war a jël. cent personne nga def fa deux penses de cent personnes noo def rek promiscuité bi day yokku humidité bi ah manqué ndox bi ñëw jafe-jafe yeneen yeneen yeneen yi ba si topp donc du coup nit dañuy walante ay feebar parfois et euh, mbir yi yombul ko am na sax benn période boo xamante ne euh, ñoom Fatima Meng yi ak benn association dugal nañ fa euh, ay ay produits détergents pour jàppale ñi nga xamante ne ñoo fa nekk te ñu am yenn éruption cutanée yi yenn façon feebar mais aussi am na tuberculose pulmonaire. Euh, sa Diakhol ak benn patriote mu ne man dama am tuberculose pulmonaire et cetera et cetera mais ça c'est des yoo xamante ne tey ñoom ñu ngi ci am taxawaay pour sax di ko faj assister jeunes yi génne leen ñu faj leen et cetera et cetera puis am na traitement quoi mais li yëpp suñ ko waxee c'est juste pour diir que euh, ñi ñuy génne dañ war a génne ils ne méritent pas de rester en prison am na sax benn autorité bi benn jour ci ñi nekk Rebeuss mu ne ma ñun. il ngeen comprendre ñu parce que suñu configuration kaso dafa changé bu yàgg ay malfa lañ fi doon indi ay defkat ay ay ay vraiment ay et parfois ay gars yoo xamante nañ def affaire yu mais bi yoon imagine sur une population de trois mille à quatre mille personnes nga am benn mille cinq cent wala deux mille boo xamante ne c' est des gens yoo xamante ne politique moo fi ne manifestation sàccuñu xeexuñu agressé wuñu defuñu ñu loo xamante ne war na mën a tax ñu ñëw ci ci kaso bi ku mel noonu boo ko amee ni nga koy traité du bokk ak forcément ni nga traité koo xamante ne c'est un belliqueux koo xamante ne c'est un multirécidiviste koo xamante ne euh, voilà dafa yàgg def affaire yoo xamante ne c'est prohibé donc ñu ngi wax ne gars yi dañu war a génne na yi am taxawaay pour ñu génne ci kaso bi bu leen gars yi fàtte mukk mukk mukk mukk mukk parce que kaso métti na trop. d'ailleurs j'en profite pour pour pour lancer un appel à tous c'est-à-dire que il est bien de taxaw fii di wax non détenu détenu détenu tey. Euh, ñenn ñi sax dañ ko def fond de commerce parce que tey ku bëgg dem waxtaan ak président Macky Sall détenu politique ngay jiital say wax ñu bëri aussi en politique ñu bëgg a nekk fii di wax détenu politique lañ wax mais ñoom lan mooy seen taxawaay si détenu politique yi na aide dem nañ xooli seen njaboot yi man à part euh, ñenn ñi leaders yi rawatina yi leaders yi nekk biir Yewwi Askan Wi ak biir Pastef euh, taxawaay bi ma seetlu doyul noonu ci détenu politique yi. avocats yi ak ñi nekk ci organisme internationaux yi ñoo koy def d'ailleurs maître Assane Dioma Ndiaye euh, maître Tall euh, ñoom Seydi Gassama Alioune Tine ak et cetera et cetera ñoom ñëpp maître Sow maître ñoom ñëpp ñu leen di gërëm ñu ngi gërëm avocats yi nga xam ne ñooy taxaw ci ñun yëpp ñu di gërëm c'est-à-dire que nit ñi dañu war am taxawaay dañu war a jéggi stade taxaw rek ci indignation indignation les gens mettent la mais à la poche dem jël xaalis yóbbul ko détenu politique yi ñu am lu ñu dundee décemment bi Rebeuss mën a lekk au moins ba suur parce que lekk bi doyul conditions yi métti na c'est-à-dire que nañ nañ nañu nañu góorgóorlu fexe ñu am xaalis pour jënd seen ay téléphone ak yooyu mais aussi nañ yóbbul loo xamante ne dañ ciy dundee c'est très très très important c'est loolu dama koy jëmale ci acteurs politiques yépp parce que les gens ne sont pas ñenn ñi à un million de francs près ñenn ñi am nañ moyen yoo xamante ne war nañ ko mën a dinañ déglu suñuy am na ñoo xamante ne bëgguma tudd seen tur fii mais dañoo jël xaalis ba di ko dugal foofu ñu koy tas ci ci chambre yi pour aider les kenn jiituwu seen ak Pastef les patriotes parce que ay millions ay millions ay millions lañ fay nga population euh, deux mille détenus ñoo yombu ñoo yombu ñoo gérer moo tax il est que ah, jàpp si il ñu continuer jàpp jàpp jàpp jàpp ci affaire yi bu baax a baax a baax voilà loolu laa ne woon naa ko wax si détenus politiques yi euh, voilà euh, li si des dama wax rek ci projet Pastef c'est-à-dire que on a de quoi être très très très fier ñun ñëpp. sans euh, dormir sur nos lauriers quoi mais on a de quoi être fier parce que euh, nit da ngay mun a muñ te teg nañu ay coono gars yi mun nañu ko si dignité euh, rëbës yombul mais ña fa nekk ñu nekk ci yenn prison yi nekk biir Sénégal yëpp te yenn bruit yi doo ko dégg diw mi ngi saalit diw mi ngi jooy diw mi ngi lii amul en tout cas ñun fi ñu nekkoon gis ñu fa jeune buy saalit te jël sait ay xale yu ndaw fa nekk. mais muñ dund ko ci ngor déggante sa famille ci jàmm ñëw la nga am la nga amul nga téye ko di muñ biir prison bi rassurer famille yi ñeen yi sax bu ñëwee visite dañuy yaakaar ni kaso bi dafa neex pourquoi parce que nit yi stress bi war a dem seen famille yëpp dañ koy jël ñoom di ko gérer seen bopp waxtaan sunu biir añadoo ensemble lu ñu am ñu bokk ko sunu biir entraînement ensemble concentré ensemble passante ay livres jàngalante ñii mënul lire alxuraan di jàng lire alxuraan ñi mën a jàng aussi di jàngal ñeneen am solidarité bu extraordinaire moom moo am ci ci euh, ci gars yi projet bi nga xamante ne moom moo ñu lié Ousmane Sonko président Ousmane Sonko yàgg ko wax cest di dire que transcendé na ay génération yu bëri yàgg na ko wax nee na doo leen mës a gis fu mu leen di waree pacte patriotique la leen jaayoon c'est-à-dire bu ma déggee sax débat ñu naan non Ousmane dafa war a lii dafa war a laa daf may jàppale tànn parce que damay xam ne ñi koy def rek ils font ñenn ñi de la délation ñenn ñi ils ne sont pas de que koo xamante ne bañ ba dugg biir prison koo xamante ne su ko neexoon yii yëpp mun na ko si bañ a fekk bu nekkoon réaliser wu rek la bëgg sur le plan intellectuel sur le plan spirituel sur le plan yeneen ci yeneen plan yëpp loolu mun na ko am fii bi Sénégal parce que mun na wax yàlla may na ko taxawaay am na xam-xam te askan bi déggal na ko mais Ousmane Sonko moo njëkk a xam ni xeex bi comme ni nga ko waxee sànq xeex bi 1960 la ba léegi donc pousse bi warul réeré si loxoom Ousmane Sonko. kenn gënu koo dund ay sacrifice ñun ñëpp Sénégal ñu fi nekk ñëpp pourquoi parce que ñii c'est vrai sonal nañ leen ba ñu exilé leen ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii ñu ngi fii mais moom aussi il en a vécu des masses te ñëpp xam nañ ko ñëpp fekkee nañ ko du loo xam te ne dafa nëbb loo xam te ne dafa ne fàngam ñëpp ñu xam ko donc kenn gënu ko dund jafe-jafe est-ce que ku mel noonu ak li ñu yàgg a jaay pendant ces ak jafe-jafe yu mu jaar ak état yëpp si fi mu egg si kooku est que dina jël benn seconde. wala benn gramme ci li ñu def li ñu capitalisé di ko vendanger loolu yéenul maanaam moo tax loolu war nañ ci dugg comme ni ma waxee aussi yenn débat yi bu ñu ko wax parce que intéressé wu leen comme ay débat wu ay amnistie ay loi d'amnistie parce que amoo leen initiative loi Ousmane Sonko amu ko am mooy le président moom initiative loi ak son premier ministre ak ay député donc buñ ci wax ñoom la a nekk en pole position bu leen demoon élection da ngeen di gagné donc vous n'avez pas besoin d'amnistie de loi d'amnistie donc ñu ko soxla ñoo ko soxla ñoom nañu ko layal seen bopp ba ñu jëlee seen loi di ko jàllale y' a pas longtemps ci pour reporter euh, pour euh, décaler euh, élection yi def nañ ko def nañ seen forcing 23 ba 23 heures suñu ay député ñu ngi xeex mais mënuñu ci dara donc bu ñu amee seen cuisine interne ci kii il faut pas accepter de subir ñun pression gars yi wala nekk sur la défensive devoir se justifier à tout bout de champ ñun li ñuy liggéey dafa ne fàng depuis des années te ñu ngi koy liggéey boobu ba léegi ci ngor ci sutura. ci gëm-gëm ak ci pas-pas bu mat sëkk donc amul lu ñuy lu loo xamante ne war nañu war nañu jaaxal projet bi dafa war a continuer projet bi dafa war a aboutir ndax sacrifice yi bëri na jafe-jafe yi bëri na yaa donc yéen yéen a am mérite boobu yéen askanu Sénégal yéen patriotes yi la grande famille patriote yéen yéen a am mérite boobu parce que yéen yéen a am taxawaay bi ñu nekk ci diaspora bi kenn desul mais ñi nekk fii aussi kenn desul mooy ki ngeen yaakaar ci bët wala ci zahir moom moo gën a am importance ba ki nga xamante ne yaakaar ngeen ni moo ci gën a ñàkk solo man gëm naa ni xale bu ndaw bi nga xamante ne da doon yore ambulant am di jaay ñu ne manifestation mu teg bagage am dem xeexi di manifester kooku mu amul kenn ku ko ëpp doole ci ci ci parti bi ak ci projet bi ñi nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy xeex donc ñooñu ñu war a delloo njukkal la ñu war a sargal lañ nañ taxaw fu ñu taxaw bañ a projet bi euh, incha allah dina aboutir. mais kenn ku nekk taxawaay bi ñu ci war am da ko war a gën a gën a dëgëral responsabilité aussi kenn ku nekk xool bu baax avec précision la nga xamante ne war nga ko def la nga xamante ne yoolu maanaam nga moytu ko ba pare synergie wu action yi dafa war a gën a tax projet bi gën a am kanam parce que kii bu xëccee côté bi kii xëcc côté bee bu yàggee éclatement boobu noonu day tax les gens perdent la substance les gens perdent de l'intensité pour ñu am vraiment matière am substance bu baax a baax a baax am doole am impact ci liñ bëgg a def foog ñu ci dajale force yi mais kii su wootee fii kee woote fee kee woote fee bu yàggee rek yàqu lu bëri voilà projet nag bi nga xamante ne moom lañ bëgg mooy projet wu change change Sénégal la ñun ñëpp a ma ko gën a te ñëw nañ ba fi ñu toll nii incha allah dafa nar a aboutir incha allah te dina am inéluctablement te ñu fi nekk xam nañ ko maanaam li des rek mooy gën a dëgëral taxawaay gën a gën a gën a gën a gën a gën a taxaw maanaam njàmbaate bi ngeen nekkee kenn ku nekk mu gën ci taxaw bañ a dellu ginnaaw pourquoi yéen yéen a mën a sauver Sénégal yéen yéen a mën a tax li nga xamante ne moo fi nekk te baaxul ñu jëlee ko fi voilà egg nañ foo xamante ne nag tey yéen yéen a nekk au devant de la am na loo xamante ne war ñu ko fekk si ñun dynamique bi ñu nekkee topp suñuy kilifa ñuy liggéey duñ ci wàññi fukki dërëm waaye engagement bi ñu amoon duñ ci wàññi fukki dërëm j'en profite pour dire que ñi ma gis ci kaso bi kenn ku ci nekk bu génnee gars yi dañ xamante ne li bëggoon ci moom amuñu ko maanaam jël ni dugal ko kaso pour briser ko yàq ko lu ñu ñàkk-ñàkk lu ñu fexe ba yàqal leen li leen yàqal lu ñu leen séparer ak seen famille bu ñu génnee dañuy gën am toole seen conviction dañ ciy gën a taxaw ñun tey ji doomu aadama mënuñoo dellu ginnaaw ci suñu ci poursuite bi ñu ci ci ci poursuite bi ñu def ci sunu sunu ay conviction ak sunu ay gëm-gëm kenn mënuñu see dellu ginnaaw cest di dire que ñaan ñu kenn dara ñun Sénégal lañ dëkk nekk Sénégalais bon temps gëm suñu dëkk préparer li yi bëgg ñu ñu préparer ko abandonné pour topp suñu ay gëm-gëm bu nekkee alalu àdduna bu nekkee lu mu mën di nekk jeunes soxla nañ ko c'est vrai mais tey jeunes yooyu ñoo troqué loolu yëpp pourquoi bëgg Sénégal changé te Sénégal boobu Sénégal ñëpp la donc lu ñuy xeex yéen yéen a ci nekk yéen a nekk au devant la scène Ousmane Sonko ci yéen la mës a compté Ousmane Sonko yomb Bassirou Diomaye si yéen la mës a si mës a si mës a mës a compté euh, na ma jeexal te def ma témoignage si Bassirou Diomaye nga xamante ne euh, sunu mag la euh, ku ñu xam la ku ñu respecté la ku baax la mais ku sérieux la en fait ku sérieux la nit ko xamante ne kenn xamewu ko caaxaan liggéey na prouvé na am na parcours am na discours mais aussi purgé nañ ko c'est-à-dire nañ ko mooy dafa ànd ak ay nit liggéey ñu observé ko gis ko xam lu mu mën xam comment il est rompu à la tâche xam effort yu mu pare pour consentir ko pour le projet loolu ñëpp nañ ko donc tey si euh, buñ ne bu ne choix bi porté nañ ko ci moom euh, soxla nañ ko càq bi pour mu nekk sunu candidat xam na ni am am nañ candidat boo xamante ne mënuñoo am candidat bu ko valeur macha allah bu ko gëm-gëm bu ko gën a sécure bu ko gën a wóor sax amuñu ko parce que Diomaye tey ñëpp xam nañ ni kooku la ko xamante ne waxuma sax trahir projet bi mais kooku mooy projet bi c'est-à-dire mooy projet bi carrément ni ko Ousmane Sonko nekkee ni ko kenn si ñun ñëpp nekkee donc euh, ñu ngi koy ñaanal di ñaan ñëpp ñu fa nekk yàlla. gaaw teggi leen natt bi ñun lépp lu ñu war a am comme taxawaay nañ def synergie d'action comme ça ñu àndandoo di xàccandoo di dóorandoo liggéey ba ñu gaaw génn génn ci kaso bi ñoom ñëpp loolu laa bëggoon wax euh, tey parce que dama ne woon euh, balaa may vraiment comme ni ñuy wax rek reprendre activité bu baax a baax a baax ma taxaw remercier leen def ay quelques témoignages si sunu frères yi nga xamante ne foofu la ñu nekk wax rek ni sunu kaso bi ñu génne nii euh, daanaka retrouver lañ sunu famille mais. maa ngi ko wax sama soxna la journée que en fait lii yóbbuñu fenn ko yokkuñu dara tu sais pourquoi parce que boo tee jëlee Fadilou génne ko fekk yaa ngi bàyyi suñu rak yu bëri ay centaine centaine rak ay maire nga téye leen foofu téye Ousmane Sonko téye Bassirou Diomaye c'est-à-dire que génn boobu du saf dara parce que kenn ci ñun ci li ñu àndee mënoo génn yaakaar ni comme que yow génn nga rek am nga liberté de mouvement yow léegi lépp jàmm amul problème lépp érage ça se passe pas comme ça peine la ñuy am difficulté la ñuy am pourquoi parce que H24 ñu ngi suñu rakk yi ñu ngi xalaat naka war a taxawee pour ñoom ñu gën a nekk à l'aise fi ñu nekk mais naka la war a taxawee ba ñu gaaw a génn si kaso bi donc ñu ngi ñaan ñëpp encore une fois dañ def ay effort képp ku ci am mbokk ji leen ay permis ngeen dem uti ko au niveau du tribunal dem seeti seen mbokk yi képp koo ci mën a dimbali ci xaalis bu leen ko hésité dem leen ngeen def ko képp koo xamante ne mën na organiser ay salle de prière yooyu yëpp baax na mais li gën a am solo mooy fexe ba xale yi fa nekk am lu ñu lekk am lu ñu naan mu doy ñu am lu ñu sol am lu ñu sango mën am ay produits détergents ba nekk ci jàmm ak salaam moo pour doole. donc loolaa ne woon naa ko wax euh, di leen remercier ñi ñëpp di leen sant euh, di wax ni incha allah du yàgg dinañ déggante et puis dugaat nañ suma ay activités. bon bref pour ce ma me concerne man jarul may sori wax ji parce que je préfère ne pas parler de xam naa ni daal incha allah. Euh, fi ñu taxawoon nañ fa taxaw te euh, dara du ci wàññeeku euh, ni ñuy jàppee woon Ousmane Sonko tey la gën a yokk ni ñu bëggee projet bi tey la gën a yokku sunu candidat Diomaye nekk sunu frère bépp taxawaay bu ñu war a am pour mbiram jëm si kanam parce que sunu mbir la ñu ñëpp dinañ ko def mais aussi bépp frère et boo xamante ne yaa ngi liggéey yaa ngi ci activité bu ñu mënee am taxawaay pour mu jëm si kanam incha allah dinañ ko def li si des moom incha allah dañ naan rawali bët yàlla na yàlla def jàmm maa ngi remercier ñëpp di leen wax à très très très bientôt incha allah jërëjëf merci.